muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. abonneel gaaw fii ci Tawfekh Production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën see jot si sens. kon dafa mel ne Tawfekh Sëriñ Tuubaa rek am solo. Thank you.

القادة الوجور للقادة الوجور للقادة الوجور والمسالخ والمسالخ والمسالخ والمسالخ بالطي والتسبيح وإني اشتريت تالي ومبكي وإني اشتريت تالي وإني اشتريت مكة إن خادت الأجور والمصالح بالطي والجسم وإني سنسالح إن خادت الأجور والمصالح بالطي والجسم وإني سنسالح إن خادت الأجور والمصالح بالطي والجسم وإني سنسالح bamba moo ñu xettali si Ahmadou Bamba moo ñu jariñ si Ahmadou Bamba mooy waay ji nga xam ni moo demoon ci géej gi si Ahmadou Bamba sa waa ji mooy waa ji nga xam ni mooy bàyyi Serigne Saliou Serigne Saliou moo la def nii nga mel Serigne Saliou moo la dimbali Serigne Saliou moo la teral Serigne Saliou moo la yëkkati Serigne Saliou moo la wane Serigne Saliou moo la teral sëñ Ousseynou borom xalima gi sëñ Ousseynou borom xalima gi borom lagan borom ndokkaan borom jawaan gi coroon xay yaa gore nanu sant Sëriñ Tuuba kon ñu ñëpp nanu déglu sëriñ bi attentivement attentivement nanu ko déglu sëriñ bi il va nous donner un beau discours un très discours moom day jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. ah moom day xanaa bu fi yemoon sax neex na ah, bu fi yemoon daal neex na la ko tedd ko waxoon suñu borom daal ni ko sa kaamil bii li muy rëy rëy boo yemoon ci xoddan lil muttaqiina neex na. waaye sëñ Muudu bu fi yemoon neex na ndax liñ fi dund ci ay xasiida wàññil sa éco bi liñ fi dund ci ay xasiida ci leeroog Sëriñ Tuubaa nga ñëwaat mottaliwaat lii ci kàddu yu rafet sell lu koy man sax neex na heure bii li tax ma ni buñ ko jëndee ndekk lu neex buñ ko jëndee nelaw yu neex mooy nelaw bu du woon ak heure bii sax du noppale bari na ko tëdd bàmmeelam nelaw am jàmm heure bi moo la ko may waxtu wi daa seet ñun lool ngir jëmmi sëriñ Tuubaa moo tax fu mu du ñu am benn yitte walla benn yëg-yëg bu dul yegg suuf toroxlu jàng xasidaam yu tedd yi waxtaane jëmmam ja berndeel ruux yi berndeel biir yi yeesalaat taalibe gi tëbbaat di ñaan yàlla fekkewaat ko déwén ndax ñiy màggal si ñëpp Sëriñ Tuubaa dañu leen sant la ma sama boroom cant nag bis bi muy sant mooy bis bi nga xamee ni ci la ko natt yu wàcc ci kawam maa ngi koy wax sànq bi ñuy julli fajar jataay bu kawe woon man leen li tax ma insister ci fexe ba 5 heures 30 ma wax Bouba Ndiaye mi yore woon jàkka ji ni ko duggal ci dal yépp ngeen leen nañ jug julli fajar bul bàyyi kenn ba noppi jël sama téléphone jiwu jiwu yi naan leen yeete leen ngir julli fajar ndax fajar gi mooy fajar gi Serigne Touba mujj julli ginnaaw nattu yi avant yi mooy fajar bi mu jullee ba noppi doo nga dékku ji li tax ñu def yitte bis bi mooy fukki fan ak juróom-ñaar ci guddi ci waxin ci la waxtaan ak man ñëpp bu mu war a waxtaan ci la waxtaan ak yow ci la dénkaane njaboot gi o oh, maam Cheikh Anta maam Thierno sëñ Mandoumbe kenn ku ci nekk mu dénk la ginnaawam ba noppi xamal la ni la ci liggéey képp laa nekk waaye damay dellu si waat soxna Faat Isa Sëriñ Tuubaa mos naa bég ci moom lool ba seereel ko ni ko xawma kan waaye yow ba boo nga xam ni dinga bokk ci ñi may dugal ci bàmmeel ba mu ko waxee nag la ca pare woon waaye soxna Fatou Issa fàttiwul wax ci moo tax bi coow li baree ci ñu génne comme rek rumeur yu du nekkul dëgg rek li muy xewee jamono bii ñu xëy xëy joxe benn rumeur rek ni ku tedd kii wàcc na te booba mi ci géej gi bokk na ci kanu ca dimbali dimbali ca murit dalal xel yi mooy soxna Fatou Issa ndax bi ñu dajee moo ni leen man de toog naa ak moom mu ni ma ñaan naa sunu boroom dugal la ci bàmmeel te insha allah man maa leen roof ci bàmmeel tegal leen la te kookee day lam wax te la mu wax te gisaguma ko loolu laa gën a gëm ci li mu wax ba noppi ma gis ko maanaam lu wax dina am lam wax tëgguma ci bët laa gën a bàyyi xel ci li mu wax ba noppi te ma ci bët kon bët na ma ni ma wax jii ngeen di wax ne ku tedd ki dem na loolu amul tax nee na moo may dugal ci bàmmeel te ma ko wax dina am Cheikh mi nga xam ni cofeelam ci sëñ tubaax moo dimbali murid yépp te njëkkul ci sëriñ bi nag déedéet fekk na fa lu toll ak juróom-ñaar fukki góor yàlla yoo xam ne kenn ku ci nekk mat nga sëkk kamaal nga maanaam nit ku baax la nitu yàlla nga dont nit yàlla nag dafa bari ay catégorie am nañu kawe lool jege sunu borom di déyaale ak moom te taxul yegg ci yenn màqara yi taxul ñu am it garaa euh, garaatu anbiyaaw nabiyu nabiyul mursal mu yàlla am ci yow confiance ba jox la ay sekkereem ne dama la waxal ma ko jaam ni comme ni mu ko defee muhammad defe ko sayidna ibrahim isa ruhullah et mbooleem prophète yi nga xam daf leen a yónni ba noppi day leen anbiya yi laa wax nag maanaam dafa am koo xam bi mu koy yónni da koo yónni day ko am ko xam daf ko yónni waaye day ko dara bari na nag ku ko jigal lool te yónni la ci jaam yi xodar ci la bokkoon ku yàlla sotti woon ay mayam la ba mel ni kuy jaaxal Muusa waaye ni Muusa am li cër bi Muusa am ci yàlla xodar ama moo taxan ñi am maanaam ñi yeewu ñépp te xam diggante jaam ak boroomam dañ ko daan woya àddu saaleh doonte ñenn ñi dañoo xëroon ba jàpp ne yonente la comme yonente yi dañ koy wooye abdu saaleh rek noonu la amewoon ay gaa yu yegg yoo xam ni dañoo nekkoon ci sëriñ bi kenn ku ci nekk li ñuy tuddee xeeti maqaama yi gën a kawe ràngoo ko ba noppi nekk xaafisul quraan xaafisul quraan doon tiisar bi gën a rëy jamono yi Sëriñ Tuubaa jamono jooju yi maanaam boo mokkale alxuraan bañ nañ ko ba sax pour nga am soxna boo boo boo ne ni mokkal nga alxuraan ñu jox la soxna te doo ci joxe dara ngir rëy bu mu rëy kàngam yooyu ay Sëriñ Aadama Géy ñoo daje woon ci sëriñ bi nekk ci wetam waaye ba tey taxaw ñu dégg ko firiir kan mooy Sëriñ Tuubaa teewul tam ñu ngi jàppee Serigne Touba benn nitu yàlla bu yàlla def ci moom ay may nii rek maanaam Abdou Saleh jàmm bu sell te wóor maanaam foo leen gisoon Serigne bi nit koo xam ne ku ko topp rek ci ay tànkam di nga yegg ci yàlla fekk na yëgut ni sëriñ baa ci biir yàlla te du yàlla damma xayaati mu ko dama ko wax li xayaatillaahi maanaam Serigne bi wax naa ko démb sunu boroom mënul ñàkk sayxul xadim te taxul seexul xadim bi mu demee nag ba nga xam ni xam na ni cër bi gën a rëy ci cër yi mooy fexe ba jàmm boo digal boo ko jëfee jariñu mu fekk fi xeeti garaat yu bari am na ci wàllu yoo xam dañoo doon dugg xalwa di ñaan sunu borom ba sunu borom mel ni ku ubbi asamaan si bindal leen ci ay tur yu sell ñu liir ko lu mel ni ay salaatu ala nabi salaatul fatih ak yee ci aju donte sax ñenn ñi gëstu jàpp na ni salaatul fatih am na keneen ko yàlla njëkk a woon li mën a xew mooy li gën a wér yàlla muril na ko salaatul fatih jox ci secret bu ñëpp noonu waaye Cheikhul Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee moom sées bi mu laaj mooy séesu ndigal daa fekk gaa yi baax toog mu dem laaj séesu ndigal boo gisee mu wax nii tuuba li abdin boo gisee mu wax ni euh, laa tafaalu shay'an bi it idni fal idnu sartun fi xabooli sha'ni cër bi mu am ci ndigal moo ko waral amul benn murit boo xam ne danga jariñoo yoon wi lu dul ni da tënku ci ndigal buñ la digalee nga def buñ la teree nga bàyyi ndax màndargam jëf ju nangu mi ngi ci biir jëfe ndigal màndargam jëf ju boobu ñu ko jox moom Serigne Touba. ba tax yoon wi di yoonu ndigal maqaama ci garaat yi yàlla roof ci jëmmam ji rek waaye loolu wonewul ni loola mooy Sëriñ Tuubaa ku tedd ki képp koo bëgg a loo ay mbiram mu wax la kuy Sëriñ Tuubaa bu jugee ngir wax la Sëriñ Tuubaa keroog lay gën a juum ndax moom tekki na jëmmam ni la ko yàlla def kenn mënu koo xam su ngeen jàng ko ci xas dee bayit bu gàtt la nag bu ngeen di mokkal waaye la la mu ca bayit ba moo bari mooy ila yaqaadallahu ma lam yakun wala yakun abadan lil mumkin lil mumkin nag moo gàntal gaa yi baax yépp waaye xaadallaahu ilayya maa lam yakuni moom daa bind ilayya xaadallaahu maa lam yakuni day way moo tax buy fiir da nga naan xaadallaahu ilayya maa lam yakuni waaye waxul lu doon yàlla sédd na ma cër boo xam ni mësu koo sedd kenn ñu ni tekk muy pouvoir mu ni te sax duutu ko sedd kenn mësu koo sedd kenn te duutu ko sedd kenn kon boo jógee di di xam ne sëriñ bi na ngeen xam ne sëriñ bi ku jig ngir xam ne kooku moo gën a réere sëriñ Tuubaa kenn xamu ko waaye nag yëg nañ ni sëriñ bi kenn la ci kiimaane suñu borom yi ayatun min ayatillahi li alxuraan ni ayatun min kenn la ci kiimaane yàlla yi sëriñ tubaa yërmande ja ak mbaax ga ak maandu ga moo ko yóbbu ci mu jaar ci gaa yi baax yi kenn ku ci nekk muy wane ni làq naa sa ngërëm boolem yi ma am ndax tarbiyu na tarbiyu na wàllu yu bari bind na ko ci xasida yi nee na Cheikh Ahmad Tidiane gërëm na ma Cheikh Abdou Qadir Jilani gërëm na ma sufiyanka yu bari salafu saalix yu bari tudd na leen wane ni làq na seen gërëm ba dem ba yegg ci sax di reconnaître seenub cër ni kenn ku nekk ci ñoom na ngeen ko nungul ab cëram ndax kenn ku ne ma nga dëgmal yàlla est-ce que loolu dafay tekki ni moom mu ci làng gi taxul mu nekk ci làng gi déedéet kullu wirdin yuridul murida taxul Sëriñ Tuubaa nekk ci làng gi li xadratillahi wala njaxidaa taxul mu nekk ci làng yi sawa un intama li ahmad al jaylaani taxul mu nekk ci làng gi aw intama li ahmad al tijaani taxul mu nekk ci làng gi aw li siwaakuma min al aqtaabi taxul mu nekk ci làng gi daa maandu rek moo tax mu ne is kulluhum qaran ala sawabi waaye wóor na ko ne nekkul ci làng gi moom Seexul Xadiim bari na nag koo xam ne buy sant day sant ci mbégte mu ko suñu borom bànneex surprise bu ko yàlla bettee mu jóg di sant boroomam sëriñ tubaa nag santul bisub ñibbisi bi waaye day sant ca bisub dem ba maam kero bi ko yàlla kero bi nattu yu gën a metti moom lay sant tax mu ni kaay leen ngeen sant la ma sama boroom di ko tàmbalee ci ginaar ba ci giléem Cheikh Mouhamadul Fadal kenn ku ci nekk foo nekk bu bis bi ñëwee na nga ko def yitte sant la ma ci yàlla ndax moom kon yëg na ni teraanga ji ko sunu borom defal rëy na rëy goo xam ni cant ga nam gën a kawee mooy mu ànd koog mboolem mbindeef yi waa jëf day rëy xanaa xamoon ne aadama bi mu tooñee sunu maam aadama bi mu tooñee tooñ gu rëy mooy xëtt ndigalal yàlla ci pexey seytaane bi ko sunu borom laajee jëf ji lu tax mu def ko leen rek la tontu mooy daf ko ni damaa gis ay tur yu sell ci pay yàlla yi ñu bind ci allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim maakaana muhammadin wama muhammadin moo tax secret yu ñu bari dañ ci génn ay mbir naan di leen ko jàng et cetera nee na ma gis tur yu yi ñu bind ci pays yi àjjana yi ma xam ne boroom tur yu sell yi ku ko ne jàkk loo def yàlla mu baal la ko suñu borom mën na ko ne baal naa la mu ne ko déet su ma la baalee day tuuti Sëriñ Tuubaa itam moom mu sant boromam xeeb na ko ba tax mu wóole yéen ñëpp ngeen sant ko boromam yàlla ni ko aadama boo waxee lii ci muhammad borom turi sell yooyu ngay wax boo ci waxee lii rek man la baal naa la baal gi du am valeur dangay ngay bàyyi ma yóbbu la àddina nga am njaboot di jur ñu ma di ma tooñ ngay jur ñu may tooñ ñooñe di jur ñu may tooñ ñooñe it di jur ñu may tooñ bu ëllëgee ma dajale seen tooñ yépp def ko ci sa biir njëggal gi jëggal la njëggal doo ko am loolee suñu borom sàkku ngir aadama xam ne lii mooy jox njëggal valeur la sëñ Tuubaa sàkku si ngeen sant la ko boromam pour mu xam ni may gi ko yàlla may lii moo koy jox valeur waaye benn taalibeem bu baax xool ba xool xam ni cant gi la ca gën a ñoŋ la gën a ñoŋ ci cant gi te gën a kawe mooy ñu dajaloo di ko ko sant la defal ko ko mooy Cheikh Mahamadul Fadal su ma nee taalibeem rek mooy tiitaru taalibe ci sëñ tubaa moo ëpp valeur lépp sëñ tubaa doomam laa mosoo dégg doomam yi kenn di tiitaroo maay doomi sëñ tubaa lañuy ñuy tiitaroo mooy taalibe sëñ tubaa ndax taalibe gi mooy tax nga daj dara sa diggante ak sa borom taalibe gi mooy tax nga daj dara sa diggante ak sa borom moo tax ma xool tiitar bi gën a rëy ma jox ko digganteem ak sëriñ tubaa ginnaaw bi mu doonee taalibe sëñ tubaa lan la doon ñun moom loolu moom leneen waaw moom dig suñ diggante ak moom lan la moom ñun loolu moom laneen la waaye digganteem ak Serigne Touba kenn weesuwut ci Serigne Touba ab taalibe man maa la ko wax kon nag sëñ Fallou moom moo joxe ndigal ñuy dajaloo ci dëkk bu sell bii di ko santale boroomam waaye mag ñi ñu nu jiitu woon dañ ko daan def ci seeni kër di rey bu jotee ku am am tëbës sax da koy jéem a xool laneen loo rey denc ko ba ba ba maggal nga tabaski ko ñii di rey xar tabaski rey xar màggal mujj ñu naan tabaski waat sëriñ bi ne ëpp naa def loolu sunna su yonente yàlla Ibrahima la te lii cant gu may sant sama borom bu leen ko tuddee mu ko tabaski waat waaye dem na ba far mu nekk événement boo xam ne international adduna bi yëpp yëg nañ ne tey la màggalu Sëriñ Tuubaa loola moom dara gën koo kawe moo tax dañoo ñëw ngir sant le ko boromam ak cant nag mboolem xeeti jàmm yàlla dara gënu ko cee kawe ak cant mboolem xeeti jàmm yàlla yi dara gënu ko cee kawe la tax ma dugal ci li ko tàmbali ci ginaar ba ci gileem moo tax bu bis bi ñëwee kenn ku nekk loo mën a rey ni nga ko rey sant la ko sëñ Tuubaa boromam ndax cant la ci jiit nag mooy mbég te mbég la ci giitu mooy bernde ci ñaar bernde ci biir wala bernde ci ruux bernde ci biir mooy lañu doon def sànq fii ci cour bi waaw li séeréer doon def loolu mooy bernde biir bernde ak ruuxu mooy lii ñi doon jàng xasida day def ak man lii may def muy dugg ci seen xol ngeen di yëg mbaaxu sëriñ tubaab ak yërmande di yeesaat taq da xam ne dëgg dëgg màggal mooy daje waxtaane sëriñ bi sant ko def tabarrukan def tawassul ci digganteem ak ku tedd ki loolu moo dégg màggal màggal du ñëw rek xol yére ba gën a rafet nga sol ko nekk dëkk bi di teg ay gerefaas di di defante ah? barab am na barab yoo xam boo fa demee da ngay sax rus nee naan dañuy màggal waaye sell gi ak leer gi ku xool seen jëmm yi xam ni Cheikhul Khadim amul benn complexe ci wàcc seen seen biir yéen ndax bu sëñ bi doon ñëw amut lenn lu ko ciy dérange waaye léeg am na barab yoo xam ne bu sëñ Tuubaa doon ñëw ngir di visiter mbooloo mi dana am lu koy dérange mais fii loolu amu fi loolu moo tax man leen kaay leen ñu fedd li yor yor bi sarti màggal gi yépp ñu def ko su jeexee ku mu neex sa ñibbi waaye lii mooy lépp sëriñ tubaa nag kenn xamu ko waaye xam na ni amul morom <laughs> te ñàkk am moroom gi nag boo ko doon leeral tey mën naa mel ni danga koy jox palaas bi yàlla te yàlla kenn amuwul place am donte nag moom daa ñëw ba ci buntu ba ci buntu néeg yonent bi mu ñaan ko damaa bëggoon a toog ci sa bunt bii sax ci say ndigal damaa bëggoon a toog ci sa bunt bii sax ci say ndigal mu mu sa nekk leen dul doon xaratu yow ma sabti saamina achar ngir lan li xidmatil muxtaari fii chahri safar sama génn gii ma génn ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeri safar ngir dajeeg samay noonu na ngeen xam ne génn gi dem gi lenn képp moo ko sabab mooy liggéey liggéeyal rasulullah loolu nag bi mu koy wax mi ngi ko waxe ci yoon wi jeewal la ko waxe fa la bind bayt yooyu xarajtu yowma sabti saamina ashar li xidmatil muxtaari fii sahri safar am na bayt yoo xam ni ñu dafay dafay mel ni dafay dafay luru bayt yu nekk ci biir géej gi fekk na bayit yi ñu ngi judd sax après géej gi waaye ñu bari dañ koy moomale ginnaaw géej gi ndax maanaam yi mooy wax ak géej gi Sëriñ Tuubaa wax na ci lisaanul xaal wasixtu bi rabbil arshi waaye wasixtu ci saayir Sëriñ Tuubaa da ko bind ginnaaw géej gi bi muy bind wasixtu bi rabbil arshi boo fekk na mu jóge ci géej gi da ngay dégg ku naan Sëriñ tubaa dem na ci géej gi taxaw ni bind wasixtu déedéet da nga naan bi mu taxawee dafa dëgërloo wasixtu bi rabbil arshi sil juudi wal afi dëgërloo ma al muxtaari wallaahu lii ma ko doon safi te li itti loolu rek lan rek la mooy dañoo jàpp ne mën nañ ko koñe ndax xam na ni kii ku fonk boromam la ñu bàyyi ba waxtu yu jot ñu bëgg koo tiiñal li ngeen di wax tiiñal ah yaa ni doo faat waxtu fii moom boo fi jullee tooñ na te xam naa ni boo mooyee waxtu yu tooñ sa borom te yaa nu wax ca jeewal ni nu doo tooñ sa borom doo tooñ sa morom li ñu doon wax jooju mooy dañ koo bëggoon a aaye mu julli te waxtu yu jot ma te dëgmal nañ ko fu nekk mu tibb suuf wëlbati ko jublu penku ëf ci suuf si daal koy mel ni ku leen ko sànni ñu daal di gëmmentu rapidement tëdd nelaw kenn ko ne fi tëdd yaa ngi xaram sëñ bi kabar julli bi mu jullee ba sëlmal tibbaat suuf si ëf leen ñu yeewu pour ñoom ba tey li ñuy waxtaanee moo kon nemee nelaw xaju ci diggante bi maam sëñ bi julliwut ñu ko ne seen kàddu yooyu ñu doon wax xam nga kooku bu ko neexoon du dem waaye booba nag la xam ne dem gi mënul ñàkk parce que bi yow ma sabti saamina achar li xidmatil muxtaari fii saxri sabara dem gi may dem damay dem ngir rek liggéeyali liggéeyali rasulullahi te yéen man du seen du seen prisonnier man du ma seen prisonnier déedéet ñoom ñu ngi jàpp ne prisonnier de guerre laa te fekk na man ànduma ak ñoom kin jàpp du man waaw asiiru maa al abraari xiina asiiru wa danna al ida anni xunaaka asiiru <laughs> ñoom dañoo yëgul ne asiiru maa al abraari waaye ñoom xiina asiiru wa zanna al ida anni hunaka asiiru am nañ problème man ànduma ak ñoom man maa ngi ànd ak ndigalal yàlla parce que li may def sañu ma ko bañ ndigal la damay liggéeyal rasulullah waaye ñoom ñu ngi jàpp ne dañoo jàpp benn prisonnier de guerre boo xam ni dañ koo téye ci seen coobare fekk na ñoom téewul ma seen coobare waaye ñu ngi ma téye ci ndigalal yàlla parce que du ma de guerre man du ma comme lii xew lii defaa nit def dara ñu ñu jàpp nañ diw tëj ko nga xam ne la mu def moo tax ñu jàpp ko dañuy yëgit ni ñoom ànd geeg jàpp gi sababu wut ñoom mi ngi mi ngi sababoo ci yàlla parce que daa am lu mu war liggéey te lu mu war liggéey foog mu am foog mu am sabab moo tax mu ni ñoom dañoo jàpp ni ñoom laa àndal fekk na ànd ak ñoom maa ngi ànd ak gaa yu baax yi maa ngi ànd ak gaa yu baax yi te loolu daa mat a bàyyi xel moo tax ku tedd ki ñaari jataay la mu sa am fu mu toog ak mag ñi di ko wax muy benn jataay ca ndakaaru ak benn jataay ca maayomba benn jataay ca ak benn jataay ca ndax day def fu mu toog day jël ay bant gas ko samp ko mu wër ko mu def ko jàkka di fa julli ñëw fitnaal ko simpi mboolem bat yam sampoon yëpp taxañ sànni beneen jataay bi mooy bi ñu ko yóbboo tàkku sànni ndakaar boobu ngeen di dégg sëriñ bi nee na su ci sama xel nekkee rek damay bëgg a jàmbaarloo ñoom ngir diis gi mu diis moom bi ñu ko indee ba di ko dugal ci néegam bu bu néeg bu sew boobu néeg boo xam ne matul sax un mètre soixante centimètres sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana nee na Serigne Touba nee na ko bi may dugg ci néeg bi man li ma doon ñaan rek mooy naa xaj ci néeg bi su ma xajee ci néeg bi te mënumaa su jóot ma jël samay noyyi jox ko yàlla jaamoo ko suñu borom ndekete moom bàyyiwuloon xel ni néeg bi yëpp dañ koo samp ak ràbb yoo xam ne booy teg rek muy jàll nee na tànk bi ma njëkk a teg ràbbu gi ci sama testado ginnaaw wi la génne nee na keroog dund naa fa loo xam ni keroog laa njëkk a gis kanam ak soxna jaara sama yaay waajuram nee na keroog la njëkk a gis dëgg dëgg soxna jaara ma xam ne kii mooy soxna jaara ci melakaan wam ko nag laa wax nee na keroog la gis gis na fa Cheikh Abdou Khadir Jaylani gis na fa gaay yàlla yoo xam ne kenn ku ci ne danga ko doon ñaax comme natt bi daloon yaxyaa rek moom ñu ngi koy dàq yonente la ñu di la dàq au nga wóolu yàlla ngay wóolu garab am na màqaamam ni garab gi xotteekul mu xotteeku garab gi daanul mu daanu moom mu ngi daw ba jub garab gi ni ko ubbeekul garab gi ni tëj ubbeeku mun ci rax ci garab ga ni ko tëjal garab gi ni ràpp tëj pour moom duñ ko gis yàlla weer ko bàyyi yére bi muy lang bëgg koo wan ni ko man maay làquwaay mais garab du làquwaay gaa yi daw ba yegg si ni gis gis gis yére bi xam ne mi ngi ci garab gi ñu si garab gi dagg ko daal di koy rey sunu borom ni ko boo defoon ne xaadimu rasul ci waxin delloo sa lépp ci man ma teel la sa lépp waaye comme dangaa delloo sa lépp garab ma bàyyi laa garab <laughs> ah boo defoon ni man delloo sa lépp ci man xasbunallahu wa ni'mal wakil man yàlla doy na ma te doy na naa ko maa indakum yanfad jàng naa ko mooy bi ñu ko naan bi ñu ko naan rek jàngal jëm ci biir buur yi mun leen man yàlla doy na ma te doy naa ko te it maa indakum yan fan jàng naa ko bu fekkoon nii dafa doyloo yàlla ni Serigne Touba doyloo yàlla yàlla garanté ko sàmm ko te day mucc ba faw te loolu daa mat a bàyyi xel toujours ma misaal leen ko dafa am benn xele boo xam ni. baaj ji dafa amul doole di liggéeyal ko am doole ameel ko ay weer yu bari fay ko ko yàlla dogal mu génn àddina doom ji war a jot ci alal ji mu teg ci tànkam bañ ko koo jot bañ ko koo jox daa mel ni néew na doole doom ji ne ko bàyyi naa la ak yàlla toog di seetaan sunu borom mel ni ku suyee benn filmu ci benn jataay daal ñëw waa ji nga xam ni moom moo yore woon xaalisub jir bi war ko koo jox te te jox ko ko jël som tolloon def ko ci benn mbuus takk ko war aw fasam ñëw ba ci aynal fulaaniya genn dex gu am doj wi génn ndox mu ñëw fa rek daal wàcc ci fas wi naan ci ndox mi yeesal waraat faso wa fàtte fa mbuus ga def junni dërëm daal dem ba mu demee am genn genn gumba gu ñëw gumba gi nag boroom xaalis bi génn àddina te doom ji war koo doon gumba gi moo ko rayoon waaye wax jaa ngi ñëw mu ñëw fekk fa genn gumba gum gumba gi ñëw euh, dafa fàtte dafa fàtte mbuus gi def junniy dërëm dem benn xele xele bi ñëw xele bi ko moom ñëw naan ci ndox mi gis mbuus gi rek daal koy jël dem naam xamul ni moo ko moom gumba gi daal di ñëw ci diggante bi bi gumba gi ñëwee nag ba wàcc ci fas wi rek waaje xelab ne ca xaalis bi rek mu tourné ñëw fekk fi gumba gi pour moom nag kenn ñëwaatu fi ci ginnaaw mu ñëw xool gis dara mu ne ko eh sama xaalis gumba gi ne ko man duma sax gis man duma sax gis fa kay fa xaasigil axwaal man xuma sax li ngay wax mu ne ko dama fee fàtte benn bus bu def junniy dërëm te ginnaaw bi kenn ñëw fi yow yaa fi ñëw jox ma sama xaalis ñu xeex waa ji daal jël paaka rek jam gumba gi mu génn àddina fekk na booba yàlla mi ngi def témoin Moussa Moussa la wax ni ko dama laa bëgg wax man yàlla ku ma doyloo di may attee say mbir Moussa ni ko ah mu ni ko dama laa bëgg a wan man ni ma maandoo làqatul ca doj wee bul wax nag loo gis noppi Moussa ngeen ne ci ginnaaw doj wi di gis lépp ñu rey gumba gi Moussa xam na ni xaalis bi xale bee ko jël jëlu ko xam na ni gumba gi deful dara te rey nañ gumba gi te sunu borom nee na ko Moussa bul wax Moussa mënatu koo muñ nag mu yuuxu ni yaa ilaahi xad nafada sabri wa anta aadil fa kayfa haatigil ahwaal yàlla sama muñ jeex na tàkk man lii moom ba dëgg yàlla bu fekkee mooy sag maando man xuma noo maando yow sunu borom ni ko Moussa kaay ma leeral la ni may doxe ci àddina mu ne ko xele ba sàccut gumba gi tooñun ko <laughs> xele ba jël xaalis ba sàccut gumba gin rey tooñuñ ko mu ne ko gumba gi daf doon liggéeyloo bàyyu xele bi gumba gi astafurlaa dafa jote ak bàyyu xele bi rek rey ko te tëg ko fenn may gis man yàlla ni muy rey bàyyi xele bi tëg ko fenn ma yebal ko ko rey fii te tëg ko fen mu ne ko xele bi ngay gis xaalis bi mu jël mooy xaalis bi nga xam ni kii moo ko amee doon baayam téye ko tëg ko fenn ma yebal ko mu fàtte ko fii xele bi ñu jël ko mu ñu fekk ko te tëg ko fenn mu ne ko xale bi alalam la jël gumba gi it damaa def njot damaa fayee ko ci moom ki reyante teg ko fenn ba noppi daal di ko nag wa aatu kulli si xaqin xaqahu toujours damay joxe samay atte te doo tax man la yaxyaa bu fekkoon ni dafa mel ni seexul xadim duñ ko rey waaye yaxyaa dafa am dafa am ay maqaama ci boromam yaakaar ni maqaama yi da ko war a utiliser pour sawe boppam fekk na maqaama kenn du ko jëfandikoo ngir sawe sa bopp yàlla mi la joxe maqaama moo lay garanti moo tax mu daw ni garab gi xaral garab gi xaral mu dugg ca yàlla weer ko ñu rey ko sëriñ tubaa néewul genn garab xaral dañ leen yàlla doy na ma te doyloo naa ko noonu la àndeek ñoom moo tax li mu dund ndakaaru dund ko maayomba bind ko ci xasida yu bari ngir wane ni façon nattu bu nekk suñu borom teg na ko kon tey jii natt yooyu ko yàlla teg ba xëy yàlla teggal ko natt yi mu war a sant teg gi ko yàlla teggi mu ne déedéet tegg ga moom yàlla la soob man natt yi ma teg laa bëgg sante borom bi ndax bu natt yu amuloo mbégte mi du am kon kaay na sant la ma sama borom ci natt yi ma yàlla teg loolee daa mat a bàyyi xel kon góorgóorlu leen ngeen xam ne sëriñ tubaa amul morom te gëm ni Serigne Touba amul moroom day tax doo am morom waaw gëm ni sëriñ Touba amul moroom day tax doo am moroom lii rek mooy màggal bi jàng xasida Serigne Touba yi waxtaane jëmmam ji waxtaane yërmande te xam ni kenn xamu ko sax ah waaye ñu bànneexoo mbaa xam nga ak yërmande dem te xam ni kenn du Seexul Xadim bu ngeen fi jógee yeesaat peq te xam ni kay tawaafkat yes yes dong la bëgg tawaaf yes képp la bëgg. ñëw Touba gi màggal dundal yoor yor bii moo raw tawaaf yes bex set wicc leer nañ yokk yëgaat ni am murit nga te dara dàqul yëg ni murit nga <laughs> di dox yëg ni murit nga dara dàq ko caati ndax ci biir yëg ni murit nga ci ngay amee tawféex gis sëñ Touba ëllëg yomal xiyaam am na murit yu bari danañ dem àjjana mais duñ gis sëriñ bi de ndax gis sëñ bi yombut jagleel la te loolu mat di bàyyi xel wax naa ko fii démb ni leen liggéeyal sëñ tubaa am na lu ko gën ñu ni tekk man leen liggéeyal seexul xadim am na lu ko gën ñu ni tekk di ma diglu man leen mooy sëriñ tubaa liggéey loola sëñ bi liggéey loola moo gën moo maqaama moo ëpp daraja ndax sëñ tubaa ku mu liggéeyloo tiiñal la ku mu liggéeyloo itam reconnaître la ku mu loo itam tëbb la yeggale la loolu da ngeen ci bàyyi xel baax kon nag maa ngi leen di ñaanal ci barkeb ku tedd ki yor yor bii yàlla nay seen tawféexi àddina ju àllaaxira yàlla na ngeen ci dajeeg ndëmbalal Serigne Touba yàlla na ngeen fi jóge yokk ba faw te sax loolu mooy am ndax man maa ko diggee fii lu na xew na fi nit ñee ñàkk jom te ñàkk ko lëre rek waaye fii lu na xew na fi lu na xew na fi ndax yoroor bii sëriñ tubaa daf ma ciy defal ay tawféex saa su képp ku koy teewee ah mën nga am tawfeex de ndax dañ ciy yëg sëriñ bi ndax dafa sel dafa neex lépp ku tedd ki la kon yéen am leen yaakaar te góorgóorlu rek te am kóllëre tey dundal barab bi te xam ni fooy dem ba jële fa dara war di fa bàyyi dara ngir dara foo dem ba jële fa dara amal ngor di fa bàyyi dara ngir dara loolu bàyyi leen ci xel bu baax jataay bi ni ko bëggee woon sax xëy na jafe na ñu amee ko noonu ndax ni waxtu wi demee damay faral di wax ni dee leen teel a ndékki ndax ngeen teel génn ci yoor yoor bi waaye comme séeréer yi bu ñu dee ndékki lu ñu xam a bàyyi ah dañ leen fee bàyyi ñuy ndékki ba onze jot ngeen jël temps te yoor yoor bi diggante tisbaar la diggante tisbaar la ak suba gi waaw kon dañuy organiser nañ ko daan defee at mu nekk nungul leen seen ñaq yi ngeen di joxe ngir jëmmi siñ Tuubaa nungu gin koy nungu at mu nekk sa laaw day du lu ñu yitteel ci nungu gi waaye njariñ la moo ñu yitteel ndax màggal daaw ba ren gisab sëriñ mbaa koy xoolee sa kilif nga téye ci sa loxo saw ñàkk sa diggante ak moom fas ca la nga bëgg teg ko ci loxoom loolu lu diis la sëriñ bu koy accepté rek am na lu tax ndax oyoful ndax ku teg ci sa loxo àddiye yor-yor joxul la moom lu Sëriñ Tuubaa moom la la jox te ku téye lu Sëriñ Tuubaa moom war caa bàyyi xel kon loolee maa ngi ciy sant bu baax. bëggoon naa jotaay bi gën a yaatu bëggoon naa it mu gën a kawe waaye kàddu yi daane naa ko sànni sama diggante ak yéen ndax xasida yi dong dañoo bégal ba noppi waaw xasida yi neex na lool ñi fi jàng ñépp ñu ngi leen di ñaanal su borom defal leen tawféexi àddina ak tawféexi àllaaxira su ma nekkee nag di lim délégation yi man na maa juum waaye sant naa ñëpp soxna Joor Njaay bàyyiwul këram kenn soxna su am ko la ñoo bokk dëkk Apix mu dénkaane boppam xamal ak njabootam ni leen maa ngi ñaan dund li ma war a dund lépp de waaye su ma jiitoo sëriñ bii de bu ma kenn tiim ku dul moom loolu rëy na rëy goo xam ne ku la ko wax am na fu la teg mu boole kooku nag di ko dund tey jii c'est la première fois mu ni ma du ma bàyyi sama njaboot kenn ànd ak ñoom dal fii ci kër gi loolu na xam ne tuutiwut ci man te maa ngi koy bàyyi ak Serigne Saliou Mbacké muy sëñ paataal mii toog di dëkkandoor bu baax ñëw ànd ak soxnaam daaw moom rek moo ñëw mais ren dañu soxna si duma fa dog fa bàyyi ànd ak njaboot gi moom fu mu toog rek soo ma bëggoon danga may gën a bëgg soo ma xamuloon danga may bëgg <laughs> waaw loolu tiraanga la waaw tiraanga la wax ju baax dirul xeeb ngir wax ju bon wax ju baax dirul xeeb ngir wax ju bon wax ju bon dirul xeeb ngir wax ju baax waaw <laughs> loola bàyyi leen ci xel bu baax kon nag maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal suñu boroom déwén fekkaat ko fi te mu te mu tal te mu tal ba ci siñ lemin ba ci siñ lemin ba ci suñu lemin mu baax mii suñu lemin si nga xëy ne gëj naa màggal si lool soxna am taalibe Cheikh la Khadija moo ko soxna Aminata Kebe mi ngeen xam ñoo bokk nekk bàyyi waaye ren dama koo jox ndigal képpum doon dama koo jox ndigal ni ko na màggal si rek moom buub njaboot gi yëpp am na ñoom dal si fi loolu na xam ne maa ngi ciy sant bu baax te di la ñaanal sunu borom subhanahu wa taala maa ngi sant bu baax sama fayeen yi ma dëkkal nga xam ni ñoo jàkkaarloo kër lépp rafet suñ togg yóbbu fa dañuy togg indi ci kër gi <laughs> waaye liñ bokk dëkk gi dafa am lu ko lu ko jiitu mooy Serigne Saliou Mbacké am dañoo bokk Serigne Saliou yaakaar naa ni magam daaw bi ñuy siyaare bi ñu màggalee ba ci gën a ëllëg sa daje nañ ci Serigne Cheikh Saliou Mbacké ñu koy jox lu toll ci douze million muy taalibe yi nekk Itali loolee lu rafet la kon loolu na nga xam ne sant naa bu baax di ñaan dëkk gi yàlla na yàgg ba ci soxna siin bu baax mi ak gan ñi ma dalalal sëñ Basiiru Seen ak gan ñi ma dalalal waa ñi sant xumma ak gan ñi ma soxna meer Caama ak gan ñi ma dalalal xeebu ma ci dara kër yooyu yëpp sëñ Aas Ba ak gan ñi ma dalalal kenn ku ci nekk yaa ngi gàddu ay gan dalal leen ba ci euh, doomi doomi ab safaal ji la ñoom ñëpp kenn ku ci nekk jël nga ci mbooloo mi la nga man yóbbu sa kër di leen berndeel loolu toujours ci man ndax kër gi moo demee nii xëy na ci kanam tuuti danañ ko defee noo xam ne lu mbooloo mi gën a bari danañ fi xaj rek waaye mbooloo mi day yokk kon foog dalwaay yi di yokk waaw kon nag loolu nangeen xam ne sant naa bu baax di tëje cant gi nag mbooleem ñi fi teew rek bàyyiwuma kenn soxna yu baax yi nga xam ni ay mag magi daara ji lañu muy soxna ku nëpp yaayu te nag seen bii ak soxna Xadi Sekk ñoom ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn waaw mooy Xadi Sekk ñoom ñëpp ay meer lañ yoo xam ne daanaka ñooy saytu daara ji te xooluñ fu nu dal ak fu nu dalut ndeysaan loolee nan xam ne lu sedd sama xol la waaw bàyyiwuma ku ma limut na nga xam ne sama xel moo fatt rek ma bàyyiwuma kenn maa ngi leen sant bu baax di sant sama njabootuk bopp gi nga xam ne njabootuk ku tedd ki lañu Sëriñ Tubaa waaye sunu borom boole maag ñoom ndax ñoom ñii toog ku ci doonoon góor mën ngaa doon xalifa général de kullu murit ñoom toog ku ci doonoon góor mën ngaa dem ba doon xalifa général de kullu murit kon bu ma amee tawféexi Sëriñ Tubaa jox ma ci njabootam ñoo xam ne bu ñu doon góor doon xalifa général de murit ak sant yàlla ñu nekk yaayi daara ji nag yaayi daara ji muy soxna Xadi ak soxna Ndeye Fatou bokk ci njabootu sëñ Baara rëkk day rëkk day ñëpp xam nañ ko yàlla dogal ñuy ñu ne ci kër gi di sama njaboot di sëy ci kër gi déggoog taalibe yépp nag waaw moo tax keroog man leen dangeen di toog màggal rek du ngeen def dara ren damay changé programme bi daal di jël soxna Xadi ne ko àndal ak waa Kënsu ma ne seen jëwriñ suba la màggal soxna Ndey Faatu ma ne ko ànd ak waa daayira soxna Faat Jaxate bu Kayaar ngay seen jëwriñ ñu ay tay tay la màggal bu subaa nag dëryaadu ngeen dem barkeelu ca liggéey ba ndax toog moom warul kenn Sëñ Tuubaa moom koo ca yónni bu ñu bu dee bu dee sa doom bu ñëwee di sa bàyyi bu dee sa rakk bu ñëwee di sa mag Sëñ Tuubaa yi mbiram kenn du ko xeeb waaw kon nag bu fekkee ni mën nañoo def yitte balaa tisbaar siyaar bi mat rek ñu organiser ko góor ñi jigéen ñi nii kenn ku ci nekk dërëm bi ngay yéene di ko joxe ngir Sëriñ Tuubaa yàlla na ko Sëriñ Tuubaa fay euh, ñi ñi tàkk nag ñi tàkk jërëjëf ñi tàkk milliard la ñuy joxe milliard yàlla na yàlla dolli leen sutura bëgg naa lool seen taxawaay fii ci yor yor bi Sëriñ Tuubaa di dégg waaw daa mel waa kër Sëriñ Tuubaa yi ñoo jëkk siyaar far waaw noonu loolu jàng na jërëjëf Mbàkke jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ربنا فلا تملك لنا بحاجتنا الحاجات وتبلغنا بها الخيرات yaa diglu ma rek xam am na benn mbokku taalibe bu tudd Ibou Diouf lu xew Ibou Diop ànday ah, saan jërëjëf ne ko koy sant baax génn àddina euh, nan ko defal fukki lixlaas ak benn bala ñoo ziyaare benn ba ñu ànd ak bismillah rahmaan rahim fàttewun Ibrahima Guèye Ibra Guèye sama mbokk ma sama taalibe ba sama xarit ba nitu yàlla ka yaaram ba mënuma ko fàtte mukk moo tax démb nee naa leen bu doon benn nag laa am màggal benn nag dama koy xaaj yóbbul Ibra Guèye xaaj bi téye xaaj bi ndax dama bëgg xaaju nag boobu ma koy joxal waa këram si seexu naa kan mu seera sama diggante ak moom si Tuubaa la gëmal xeer ndax Ibra Guèye xam naa Ibra Guèye nitu yàlla la woon amuloon kenn ma yàlla du ma fàtte sama Baay Faal ba borom njañ la Cheikh Moustapha sama sëfoor ba sama lépp yàlla na yàlla xare ko àjjana du ma fàtte sama taalibe ba sama waajur wa sama jigéen jë soxna Ndey Géey muy waajuru sëñ Modou Pam Modou Ndiaye mi toog ci ji di wan kenn ci ñun bëggoon sëriñ Saliou lool yàlla na yàlla xare ko àjjana nit booy daw du ma fàtte hélas mbuub sama doom ja di doomi dama njaay ak mbuub mi taxaw li ma sécuriser xale bu ndaw yàlla yàlla yéegale yàlla na yàlla yokk leeral te te tas ci barkeb sëriñ Saliou waaw hmm? soxna Astou Ndiaye waaw moom itam deux mille xaw ma dix ma de mille vingt de mille quinze boo ko safar deux mille vingt waaw soxna Astou Ndiaye yàlla na yàlla xare ko àjjana moom itam te leeral bàmmeelam ñi fi bàyyeekoo ñëpp yàlla ñu jiitu xaar na xam nga man daanaka man du ma jooy benn taalibe damaa xam Serigne Saliou demal xaar ma jërut jooy fii gisuma kenn kon fii mu bëggal maa dina la fii taal demal xaar ma jërut jooy ku wàcc dem ñibbi ku liggéey mat mu dem ñibbi ah <laughs> am na loo xam ne bëgguma ko wax muy bukkar mais lijjanti naa ko ba pare de bëgguma ko wax nag mel damay ndam waaye billaahi lijjanti naa ko ba pare te kuy kilifa nag balaa dara xew da war a lijjanti loolu ba pare mooy say loxo yi ngay kàbbare su wàccee rek si tubaab barke borom Tuubaa loxo yi ngay kàbbare laax tiim ki nga xam ne daa mënoon te mënatut daan la jox te mënatu laa jox daan la wax te mënatu laa wax daan la ferekante te mënu ko laa ferekante da ngaa war a lijjanti ba boo nee allah akbar gu njëkk bala ngay par laax sëñ Tuubaa yeb la ndaw balaa dara xew loolu nga war a lijjanti waroo lijjanti leneen te loolu ñun am nañ ko nag ñu ngi ko am depuis 2004 ma sant Serigne Touba baax kon loola ak cant rek la. moo tax lu bari man tiituma ko amu ci problème déedéet sama bane sama teew ak sama fàdd nag laa wax ndax loolu leneen la jëmm moo fi jóge may leer du fi jóge jëmm may toxu mais leer gu yàlla rek ko neetar du musa faatu moo tax yaram moom la ñuy denc suuf mais ruux dafay yëg ban sax ah bu leen ma dugal ci yenn kii nag dafay nekk beneen dimension waaw ah, xëy na fii ngoon gi guddi gi kuur bi bu nu dikk la ñu waxtaane ko waaye waaw ah, mi ngi noonu waaw yàlla leen yàlla doon sutura maa ngi sant ñépp di sant it bàmba mii li tax nag ma sepp ko ci taalibe yi di ko sant dama koo xam ndax moom keroog wax naa ko nee naa ko yow danga am histoire ak man histoire boo xam ni mënatu koo effacer mooy keroog bi nga jébbaloo jàpp ci loxo benn soxna bu tudd Amina Bodian ni ma kii de damaa yéene woon mu doon sama soxna ma ne ko amoon ma kan waaw mu la bëgg te xam naa boo ko bëggee mën naa nekk gis nga ab sëriñ lu mu nekkal mu nekk rek daa fekk mu mën a connecté leeru taalibe bi mais ku amul dara ci leer kenn du la mën a connecté mooy daa fekk nga dëggu yàlla defal ko tawfeex jooju mu ne suma sañoon day taawloo ci yàlla defal ko tawfeex jooju musuma dégg gis lu mu taxaw ñaan ko sëriñ yu Mbacke sama kanam te may ko moo tax ma ne ko yow sag ñëw ci daara ji beneen mbir la démb wax naa ko fii ne ko classe bu ma di mbay gi ak Pamour Ndiaye seeral lañ ma ba tàyyi di ma xamal ne dafa mel ni yow Cheikh Rafal la tam la ci daara si moo tax mënuma laa ñàkk maa la bëgg maa la téye sa sëriñ nag bu la bëggee raw nga fii nga bokk sa lépp fii la nekk loolu xam naa ko yëg naa ko musoo wax lu ñaaw musoo def lenn lu ñu roog safaan kon loolee ba ca ba yowmal xiyaam rek waaw kon nag loola maa ngi ciy sant bu wér di la ñaan su borom dool la ay tawféexi biir ak yu biti ndax li gën a neex mooy mu ñëw fekk ma fii ni ma sëñ bi daa am baat boo ma waxoon genn guddi àjjuma ma ne ko ban baat la mun ma damaa ñëw nekk ci benn xat-xat bu métti moo ko gore ba xole nga am loo ma wax loola bu ma ci tegee bët te santuma la damaa goreeti dama laa bëgg sant ci teraanga ji ma yàlla defal moo tax mu fekk ma fee di baatar rek day sant te loolu jël ah tabaarakallah waaw moom da deel baatara rek waaw moom da deel baatara rek fa tabaarakallah tabaarakallah jërëjëf alhamdulilahi rabbi yàlla na borom bi defal la yow de bu ñëpp defal yow jumaa jee dina yegg yàlla na yàlla dool la sutura gën laa tëbb rek waaw ah, waaw bamba dina dem ba neex lool ba nga fàtte lii comme ne nga neex na ba nga fàtte lële ba tax nga gaare 4-4 bee nay gën a neex rek tey day gën a neex tey day neex ci ñëpp waaw sant soxna Astou Cissé jabaru Madi bii nga xëy ne moom màggal gu ne day garante yére bi may sol loolu mun ma ci dara soxna na bu Diagne ñu doom saytu yére yi ak jëkkëram mi ko ci jàppale maa ngi leen sant bu baax bàyyiwuma kenn waaw li ngeen gën a bëgg na fi ne mooy ab tukki waaw dana am ñu ma yóbbu nag ñu dem jaxasoo tubaab yi indil ma ci weccetu ñu liggéeyal sëñ Tuubaa waaye dina am ñu toog xaar nag waaw ndax ñëpp nekk fi milliardaire nag moo gën nekk faneen milliardaire am leen tawféex rek du ñàkk nag ñu génn dem seeti affaire yi ñëwaat waaye du ñàkk it ñu may faral di gis saa su nag ñu ànd liggéey bi rek wàññiwu dara di waaw bu ma ci kenn mere wàññiwu dara waaw kay ah am na ñoo xam ne moom jëm gii duñ ko weesu nañ toog rek te xam ne loolu la yàlla dogal ma di yow jëru nga may xool bokkoo ci yow naa la daaw xuma la fi téye ba léegi waaw damaa xam lu la fi dem nga bu yàgg barke Sëriñ dem nga bu say mbir fàtte na ñeneen ak ñeneen bëgguma lim na kenn di ma mere waaye fii bëgg naa ngeen di fi indi tawféex bu ne tawféex bu ne njaboot gu sew gi di bëgg di jàng ci yéen di xam ne barab bii mooy Touba Mbaye fii la ñuy tur sunu ñaq sunu ruux bu waddee fii la ñuy jaaral doon muy bu baax ya ñu day jeg Serigne Saliou Mbacké ku ci ruuxam fii ngay jaar doo ko dem bàq ya dajeeg Serigne kon bàyyi na xel barab bi seeni doom jumaa ji pare ngeen di ko indi fii muy jàng alxuraan ngeen di gurgur bay fay ñi fiy jàng di julli ci jumaa ji di dundal barab bi di yëg sëriñ bi saa su ne tey xam ne mbir mi fii la pàkk bii dana seere ñu bari ëllëg yomal xiyam waaw kon boog waxtu julli waa ngi waaj jot maa ngi leen di sant di leen gërëm la ca des bu ngoonee bàyyi faale danañ ko mott danañ ko mottali fii xam naa na ngeen seex rafaal ba seen xool sedd nag waaw bu ngoonee bu ngeen reeree guddi gi na ngeen ko seex rafaal seex rafaal kese nag waxoon naa ko fi de seex ibrahima moom guddi gi ku Seex Ibra safoo rek ñëwal nu ngeen ko defee neex na en tout cas bu leen ko kundung kundung rek ndax si Mbàkke da koy tere waaw waaye nu ngeen ko defee rek Aliou Kébé nu mu ko wayee mu neex nu ngeen ko awoo mu neex nay Seex Ibra rek ngeen def ko ba guddi gi sori nag ndax Seex Rafaal daa am cër surtout man am na lu ma dul wax nag kon nag bu ngoonee na ngeen ko Seex Rafaal ba mu neex ci kattan su borom maa ngi sant bu baax yàlla nañ ko màggal ci tabaarakalla ah waay waay sa soxna moo def lii fa tabaarakalla yàlla yàlla mot li yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa kenn xamul fu mu yem. gaaw fii ci Tawfekh Production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën see jot si saa si. kon dafa mel ne Tawfekh Sëriñ Tuubaa